moom rek la nu am muy eh, ndigal laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah noon moom rek la nu muy eh, ndigal te lii ci ci mag ña dañoo wax ni sëriñ bu mag bi sëriñ bu maam Cheikh Ibrahima Fall bi Cheikhul Khadim moo ko woon wax ko ni ko damay séenu gan goo xam ji dama bëgg nga séenule ma ko te bu yegsee nga teralal ma ko te buy dem nga gungeel ma ko ci mag ñi nag wax nañ ni sëriñ bi moom bu masaan Cheikh bu masaan sukk fi kanamam li muy wax da koy dégg rek waaye du mën a xam li muy wax lu mu doon ba su génnee ñi mu àndal la koy wax ñoom la koy laajaat ci lii sëriñ bi wax lu mu lu mu lu mu wax ko defee ne ko sëriñ bi day waxal naa ne daam gan gu muy séenu koo xam ne gi daa bëgg su yegsee nga séenule ko ko te su yegsee nga teralal ko ko te buy dem nga gunge ko wax nañ ne mu ne ah sëñ Bamba doom li mu wax xamu leen ko loolu weeru koor bi la ci jublu weeru koor bi la wax ne naa ci togg ay dab xam naa di ko eh, ko jébbal si ñu di ko jébbal woy woy woor yi ilaha illallah Cheikh la daan wax ni nit day bu bu musee la muy togg jëmale ko ci kilifaam aw des la ko yot te nit bi yot kilifaam aw des wax na ni moo tax ñor gi li ñu ko daan xamee mooy dañu daan wut bant rek jam ko ci ba xam ñor na wala ñorul loolu la sëriñ bi bëgg ñu di ko def ñu koy togg ak ñu koy yóbboog kenn ku ci daal mi ngi lay sant ab yar ak i teggin ak la war ci liggéey ba lépp rek nga di ko def la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ndogu yi nag li ci sëriñ bi sant donga yi moom ñëpp xam nañ ko dab yi nay set cin yi nay set li ñu leen di liggéeyloo nay set ji jëmm yi nay set yére yi ñuy sol nay set ndax bëgg na lee mu jëmale fa kanam sëriñam ba kat mu lépp laab ànd ak laab ànd ak set te it bëgg nañu di ko togg ba mu ñor ba mel na mu war a mel ñu bañ ko yàkkamti ndax jarul yàkkamti ndax gannaaw li ñu koy defee lépp mi ngi fi nañ koy defee ni sëriñ bi bëgg rek ba bu taajee fa kanam sëriñam ba euh, xolam sedd ci guy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 laa ilaaha illallah Mustafa laa ilaaha dox nañu ba muy dox ba nëgë ni dañ ko wéel ndax bi mu fi jógee itam ki ko fi wutu jëkk fee toog ab toogaayam bi sëñ Modou Moussa wax nañ ni da ko wéeloon di ko def ba mu fi jógee ki ko wutu di sëriñ Mortala moom it naka noonu moom da ko wéel di ko togg mujj na nag mu yaatu lool ci kër yi daanaka kër gu ne fi ne mën naa ni ñu ngi togg ay ndogo ndax ba Cheikh ba day garab goo xam ji bànqaas yi mën naa ni euh, mooy mooy mooy njaboot gi kenn ku ci ne fa nga ne fi ne yaa ngi togg fi mu ne boo doon wër Touba li fi li fi njabootu Cheikh ba di ay sët te doon seen i way jur kenn ku ne yaa ngay togg ba ci ki nga xam ni sëtaal la di sëñ Cheikh Roqe moom itam. ma nga koy def ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen Cheikh Ibrahima la ilaha illa la subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisu tey bi nag moom li ko waral mooy euh, day bisu kumte kumte nag moom dañu koy fonk waxtu ne di dolli dab yi di ko rafetal di ci boole lépp loo xam ne lii nii dana ko taaral danañ ko ci dolli ci xeeti yu ñuy naan yeneen yu ñuy jëfandikoo lu demee ne ay fruits yooyu yooyu yëpp dañ ko ciy boole di ko def sunu kéemtalaayal kartan yemale woon ko nag fenn lu nu am rek danañu ko ci def ba bu nu sañoon bu ta taajee fi kanam sëriñ bi euh, dana ci am mbégte ndax nun mbégteem sëriñ bi rek moom lañ cay sàkku loolu moo waral kumte di am. tey jii nag boo gisee kumte li mel nii mu mel sëriñ bi dafa waxoon démb ni tey jii na dab yi na teel liggéey bi ndax li tax xam naa ni mu ne na teel euh, gannaaw sëñam am di tey àjjuma lay togg moom itam mu sërif asan di indi waa daaru xafarit tey jii lañuy togg ñoom itam di indi moo tax mu ne bu ñu fa dajee xëy na dana indi ab xataay moo tax mu bëgg ñu teel a dem ba bu bañ faa fekkante ba muy waral muy muy xat ci ñi nga xam ne ñoo yore liggéey bi di ko liggéey loolu moo waral tey jii sax teelaay bii mu teel ni mu kii ko ne daana fi gën a euh, naaj tuuti ñu ñu ñu jëli ko di ko di ko di ko di ko nëbte di ko loolu nag mooy li nga xam ni mooy li sëriñ bi santaane ñu di ko def laa ilaha illallah noonu nag li nu ci dugal sëñ Modou Aminta moo nu ci dugal ndax euh, dañu wax ni Serigne Saliou daf ko yónnee ndaw bis ni ko sëñ Modou damaa bëgg dab yi ñu dolli ci ay dab ba ba ba tax man mii mu jox ma ci cin ni ma dangay am cin da nga koy yor di ko togg jox sëñ Assane mais itam cin ñu di ko ci togg muy dab yooyu nga xam ne moom lañ ci dolli man moo waral sama euh, lii may def ma di ko def ndax ndigal laa ci rek moo tax ma di ko def la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah donc it bu ñu demee ci kër sëriñ bi nañuy ànd ko dal di di di di déglu ndigal lu lu lu ab dongo surtout kër Cheikh Ibra ku ca bokk foo dem lañ lay war a xàmmee mooy sag dal ak sag déglu ndigal ak sag wéeg ndigal te bañ di yëngu yennu yëngu yi ndax yenn yëngu yi warul ci ku dem ci kër sa sëriñub sëriñ di di di sëriñ Muntaxa nemm la ñu war a def bu ñu demee di déglu rek bàyyi bàyyi faal nga ne faal daw dikk ñu leen ndab li jël ko yóbbu ko kër sëñ diw wala yóbbu ko kër soxna diw nga jël dem yóbbu ci teey akuk dal foofa nga ko yóbbu it boo demee na mel ni ci yow fi nga bàyyi ko nga doxe fa noona loolu la sëriñ bi santaane ci eh, ndogo yi bu sañoon daal lépp dana tege ci yar tege ci teggin tege ci taalibe ndax ka ko sos daal na ma ko daan defee la bëgg ñu di ko ni defee ndax wax nañ ne te ñu koy togg da leen di wax ni bu ñu ko mus illallah ndogul Cheikh Ibrahima bu ñu yaakaar ni daa tëb tëb rek di togg yi ndogu wala lii muy def da ko da ci jubóol ak lu mu lu mu am ndigal la lu mu jubóog boromam ba di ko doon ndax Cheikh Ibrahima dofut lépp lu dara ne loxo ma nga ca magum taalibe mu ñuy wax maam Bay loo ma sama ko wax ni ma Cheikh Ibrahima day faal lépp lu dara ne loxo ma nga ca kon lii lii lii mu nekk nii di ko def lu mu xam la lu lu mu rafet lu lay itam man lan lay ñaan yërmande doole biir faal ak biite la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ñoo ngi leen di gërëm nag di leen sant ci taxawaay bi sëñ Cheikh ndax lii itam lu am solo la ndax leeral lii ci ñi ko xamul mm, baax na ci ndax lii moom kon lii lii lii mu nekk nii di ko def lu mu xam la lu mu lu mu rafetlu la itam ñu ngi leen di sant nag di leen gërëm ci ah, taxawaay bii ngeen xam ne moom ngeen di taxaw di wër kër Cheikh Ibrahima yi ah, di ci laaj ay laaj yoo xam ne la ci jublu du dara loolu bëgg ñi xamul rek ñu xam waaw loolu rek la kon noo ngi leen di sant di leen gërëm di yow sëñ Cheikh itam sa barab bii nga xam ne danga koo ubbi ah, muy muy sa site bi ah yàlla na ci yàlla defal foo ko sa njorto ndax xam naa ni ubbeewoo ko lenn lu bëggal liggéey rek te liggéey bépp itam liggéeyal sëriñ bi moo la ci gën a ñor moo tax nga di ko def ndax yow xam nan la bu baax xam ne euh, foo mën a ne it ci taalibe rek ngay ne ndax loolu nga xam tey moom nga xam démb kon ñu ngi lay ñaanal ba lii nga ci yéene ba tax nga ubbi ko rek yàlla nañ la ko ci yàlla defal ak daraje sëriñ bi nga xam ne moo tax ngay def sa jëf ji ngay jëf sant yàlla di leen sant di leen gërëm te di leen ñaanal allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim jërë ngeen jëf ngeen jëf